waaye il suffit que scooter bi ñu sàcc ko wala ñu sàcc laadum bi wala sàcc poos bi commencé nag bi gën a garaaw waxuñu wax de mais bi gën a garaaw mooy la nga jëfoon yëpp nar nga ko perte ndax di nga fekk benn paa bu ñàkk solo ci koñ bi yore néeg boo xam ne lal sax amu ko der la fa lal teg fa ay soldeel nga ñëw di ko diis say soxla yow yaa ko ëpp ëppale lépp yow am nga kër au moins am nga laadum au moins am nga scooter au moins am nga oto au moins ñëw naa ko sama affaire bi loo ci mën mu naan la su ma la ko defalee mu feeñ nangam nangam nga nangu mu di la defal lu yàlla xaraamal xasira dunia wal axira perte nga àdduna perte àlla parce que sa gis-gis dafa gàtt li tax mu gàtt kii nga ñëw di ko ñaan ndimbal moom bu amoon ndimbal gën laa jekk gën laa jekk mais nga fekk ko foo xamante ne da koo luyee amul sax lu mu ko fayee nga bëgg yëkkati ko valeur bu toll noonu pour mu wëral la ko nu mu la koy wëralee moo tax li ma dégg démb dama rey ba sonn mais waa ji wax na dëgg nee na dafa doon bëgg a bëre ji am benn sëriñ bu ñu ko booleel mu fay ko xaw ma sept cent cinquante mille mu jënduloo ko ñaari bëy waa ji dem ca suba sa moom lu mu doon seete ñëw fekk sëriñ bi togg bëy bi moom njaboot gi ñuy lekk moo daan ful la parce que yaa dof di joxe ay bëy pour bëre moom mu daan bëy yi di la xaar yow ñu daan la kon bul ñàkk sa ngëm ci sababu nattu waaye lala yàlla teg bu alal jar mukk nga dem dugg ci génnal dañ maa sàcc mais ki ma sàcc dana xam maa ko gën a dee dem dugg ci liggéey pour liggéey ki la sàcc kii alal la la sàcc mais yow sàggan nga iblis bàyyi nañu sàcc sa alal mu sàcc sa ngëm ñaata ci ñun ñooy am problème bitig bi dañ koo sàcc nga dem ne naa dem bund naa dem biir Casamance naa dem biir gaan gi ki ma ko def man nangam ko jamono bi nga koy nangam ñàkk nga sa ngëm ñàkk nga ngëm yàlla nekkatoo jullit loo def jaratu ko wa min annaasi man yacbudu allaha ala xarf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه برام بن خسر الدنيا والآخرة الله أكبر سنة نيوي نيسان الله أكبر nga dellu ginnaaw dootoo julli dootoo jaamu yàlla léeg-léeg ñu sàcc la dara tàkkusaan jot ñu nodd gaa yi nañ leen julli ah julliwuma dara waaw waaw nangam nga foog ni yàlla moo fi nekk di la garder say affaire waaw sa jabar tas asalaatu xayri mina nawm nga bankuwaat parce que amoo koo teg loxo loolu mooy yàlla nañu yàlla musal mbokk yi wa in asaabatu fitnatun qalaba ala wajhi borom bi ne xasira dunia wa axira te ki ñàkk adduna ñàkk alaxira borom bi ne zalika huwa alxusraan almubin moo tax ñuy faral di ñaan rabbana wala tuhammilna ma la taqata bi yàlla boo ñuy teg ay nattu yàlla boo ñu teg lu ñu attanul gis nga nattu bu la yàlla tegee boo àttanul par force da ngay échec yàlla bu ñu ko yàlla teg moo tax jullit di ñaan yàlla boo may teg nattu yàlla bu ma teg lu ma àttanul parce que bugguma échec yàlla teg ma loo xam ni àttan naa ko mu yéegal ma waaye bu ma teg lu ma àttanul